sant yàlla bu baax a baax. Abdou Diouf Gris 2. waaw Abdou Diouf nee na saa ba yëngu daanaka xaw at bi daa waroon soufflé yow mi a ne préparé na ko presque ay weer xam la yàlla dogal li muy dogal làmb moo dëgg rek làmb moo dëgg xam la xale la. dellu na ci buntu àdduna am xam nga yàlla dimbali ko may na ko ndam ñu ngi koy naan suñu borom def ndam li jikko xam nga kon nag amul ay saako yi dégg ko dañu waroon bëree booy bi daan na ko daan na ko jël bi seetlu amul benn benn de di nga xam ne ñu ngi naan nag ndam li jikko. ëllëg ko Abdou Diouf ci làmb. non jeex na non làmb jeex na pare na bàyyi na. bàyyi bëre non bàyyi na. waaw non làmb day am foo xam ne boo fa tolloo xam nga mu dégg muy ñaaw waa Fass daan la ñaari yoon xam nga li war a daan daan ko kon bàyyi ko dem seen yoon yàlla jeexul quoi war na def si làmb non yàgg na dama noon kenn mënu ko lim mais yàgg na parce que boo demee 99 ba léegi yaa ngi ci làmb xam nga yàlla dogal kon bàyyil quoi garaawul yàlla jeexul danam seet leneen ñu gis benn geste keroog bi ko Gris 2 daane dugg na ba ci géew bi pour pour pour pour accolar ko mais loolu yow yaa ko bañoon est-ce que nekkul loolu regretté non dama dama dama dama rus sax am na ma métti barke Serigne Babacar si wax naa ko yow damay léegi Gris bu dul dara ñoo bokk Serigne Babacar Ibrahima mooy mu nekk sama grand boo xam ne fu may dafa may bon protection lamb la ak xam dafa fort ak situation du mu demee dem naa ba sa kër xam ne def naa erreur Ibrahima mooy woo naa ko woo naa xam la kon man maa juum maa ngi Sénégal yëpp xam ne xam nga am ku juum mais vraiment loolu du sama jikko xam la mais ñu ko ndam ci wa salaam lamb noonu la waroon demee. numéro 1 Lac de Guiers numéro 2. combat boobu la ci wax. da koo dàq. combat combat dàq ko. parce bu ñu joxoon avance bi bi nii mooy yóbbaale ko. roi des arts nag la war a bu ñu ma joxoon avance bi nii mooy yóbbaale ko. mais su su mbër loolu du ay jëraay mais xoolal kaw ma Gris Bordeaux combat dàq ko at naa ko bëgg. te ñaari amateurs am ñuy taxawal nañ jox bu boo ma joxoon nii mooy yóbbaale ko. boo ma joxoon nii mooy yóbbaale ko laa nii barke Serigne Babacar si. yàlla def jàmm merci jërëjëf